mbokk internet yi nga xam ni yéenay seetaan NG TV ñu ngi leen di nuyu di leen wax ngeen dal ak jàmm na leen suñu chaîne activé cross bi ndax vidéo bu dugal ngeen mën koo gaaw jot lu soxal mbir yi nga xam ni eh, ñu ngi koy eh, dégg jamono ji mu nekk lu ñaaw lool ñu li ci tudd nag ki nga xamante ni moo di Amadou Mbaye eh, Garmi muy lu doy waar lool loo xam ni moom sax xamul fan la mbiri soqi ko ba tax ñëpp di jóg di ci tudd li nga xamante ni moo di turam muy ñaawteef gi nga xam ne dégg ngeen ko fan yi euh, benn communicateur traditionnel boo xam ne dañ koo euh, jàpp mu doon euh, seq ak benn xaleel ba jamono ji mu am lante ak yoon sax bu ko ci ay xibaar sax kookee beneen rajo bu nekk ci banlieue bi la doon liggéey ñu naan ko Oxygène FM ba waral waraloon nag lii nag bi mbir yi amee nga gis ñu di ci tudd turu ki nga xamante ni moo di Amadou Mbaye Garmi ca loolu nag mu nekk loo xam ne daal doy na lool doo xam borom site internet yi la eh, doo xam ñi wooye seen bopp ay journaliste leen te duñ ay journaliste ba ñu di ci tudd koo xamante ni eh, eh, yoonam nekku ci tamit ñu di ko tudd daal ci ñàkk fayda yoo xamante ni doy na waar lool